ñëw ci débat wu euh, assemblée nationale DPG pg euh, du du premier ministre son Sonko demande aux députés de rectifier le règlement intérieur euh, sinon dina dem def direct déclaration de politique générale am euh, devant un jury populaire con euh, constitué de de citoyens de partenaires du finance du, du Sénégal et d'université première appréciation de de ce de ce débat-là pour man euh, le Sénégal est en crise. est en crise. crise bu rëy boo xam ne commencé na et la première décision bu président bi war a jël mooy dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale la l'avis du Conseil constitutionnel. mënu nga ko dissoudre. si. ah déglu rek dañuy da ma laaj. Hmm. mënuñu ko dissoudre au titre. d'une conséquence d'une motion de censure parce que y a pas mais li xew Sénégal c'est extrêmement grave. non mënu ko dissoudre. oh, oh déglu ma au titre de la constitution. loolu laa la ne ma ne la déglu ma rek <laughs> man maa la wax. mënu ko dissoudre waaye yow déglu ma rek man maa lay wax. lu tax ñu war ko dissoudre immédiatement li tax ñu war ko dissoudre immédiatement. assemblée nationale bi waxuma sax ay problème mu légitimité parce que légitimité moom. Euh, pratiquement boo xoolee ni ñu juddoo depuis les listes qui ont été <laughs> liste titulaire liste suppléant assemblée nationale bi moo fi dem biir assemblée député yi jël seen procuration jox ko beneen député c'est du jamais vu assemblée nationale moo ñëw daxa fi Mimi Touré de façon complètement illégale ku ñu élire assemblée nationale bi moo fi indi dem def loi ah si affaire u report u élection assemblée nationale moo fi ñëw def benn commission d'enquête boo xam ne mosul job dañ ko defoon rek pour mais je te dis assemblée nationale bi li mu def ci dégâts législature bii laay wax bii laa la wax ci affaire affaire affaire juge yi affaire juge yi dañu ubbi ko ah, yëpp manœuvre yëpp fii la ma fekk mhm. assemblée nationale bii nga fekkee ah man dama dama waaru comment se fait-il que assemblée nationale bi mën a am un minimum de crédibilité li tax dissoudre wuñ ko immédiatement mooy que dañu ne mënoo ko dissoudre avant les deux ans mais bu doon mën nañ ko dissoudre avant les deux ans le premier acte politique à faire c'est de dissoudre l'assemblée pour cette affaire-là de légitimité mais li ñu def actuellement moo gën a grave qu'est-ce qui s'est passé ils ont un texte qui n'est pas bon le règlement intérieur ñu génne les disposition yoo xam ne moo concerne premier ministre li tax ñu génne ko manœuvre yi ci dem loolu jarul wax ñu yëg ko ñu dénoncé ko ci biir assemblée bi ñu ne dinañ ko corriger ils l'ont pas corrigé premier ministre war a ñëw def déclaration de politique générale. yow d'accord nga mu def ko devant un jury populaire. déglu rek dinaa ñëw xam nga danga nga laaj rek tontu du forox bàyyi ma rek ma ñëw dama lay expliquer pourquoi ñu war a dissoudre immédiatement. assemblée nationale c'est une œuvre de salubrité publique bu ñu buggee institution yi fonctionner normalement parce que crise bi kenn xamul fu mu jëm premier ministre ñëw na leen dinaa ñëw te ku muy waxal kan lay waxal un membre de son parti qui est député sur Facebook ñu def seen réunion ne ko bul ñëw parce que règlement bi reconnaître la lii lii lii mu ne leen du ma ñëw non seulement duma ñëw bu ñu ko rectifié wul sama déclaration de politique générale dinaa ko def dans un autre sa ça jury populaire man ba léegi c'est deux hommes politiques qui parlent sur Facebook. oui mais pour ils l'ont mis ah, publiquement. attends attends euh, on Facebook, est en est, politique. non Facebook c'est public. rek dama lay expliquer li may wax ni c'est très sérieux. Mhm. président bindul. assemblée premier ministre moom mënul bind assemblée président bindul assemblée kenn waxu leen du ma ñëw yow nga réunion gën a kii daf ñu manqué respect bu la neexee nga ne comme daf ñu manqué respect am na ministre bu war a ñëw def déclaration débat d'orientation budgétaire du fi dugg te kooku mu am article boo xam ne ci règlement intérieur moom moo organisé le débat d'orientation budgétaire yow assemblée nationale ban pouvoir nga am pour tere ministre teg fa tànkam nga ne parce que kooku chef am moo ma ñàkkee respect donc du fi dugg ça veut dire que benn ministre dootul dugg assemblée nationale dootoo voté budget amul benn loi muy proposition de loi muy projet de loi boo xam ne mën nañ ko voté assemblée te ministre bi taxawul représenté kon yow assemblée nationale nga décider c'est la cerise sur le gâteau nga décider ne ministre du fa dugg parce que premier ministre la manqué respect te yow ki la manqué respect bindu la président bindu la yow amoo benn pouvoir bu la koy permettre nga yeewu ne du fa dugg yow kay bien le le li war a tax ñu def assemblée nationale mooy ñuy voté loi yi mënatul am yow kay bloqué nga institution yi loo fay defati le président doit prendre ses responsabilités demander la dissolution immédiate en disant que cette assemblée nationale a bloqué le pays mais mënu ko. waaw ko mooy lan yow kay. mënul dissoudre avant septembre waaw yow point de vue la déglu rek. ma non c'est pas mon point de vue. attends je t'explique maa ngi ñëw c'est la loi la loi la date d'installation non non non ça dañu ne la su amee su amee soo defaree assemblée ba pare da koy may mu fonctionner pendant deux ans. c'est pour éviter non. c'est pour éviter parce que le cas de dissolution bi ñu prévoir formellement parce que mun nga am cas boo xam ne da ko prévoir formellement mooy en cas de crise exceptionnelle article 52 ou bien quand il y a blocage des institutions boo bëggul dem ci situation de crise mën nga ko def bu la neexee sax nga wootee référendum qui peut le plus peut le moins mën nga wootee référendum ñu changé constitution bi yëpp on bu la neexee nga def ko mais dama la bu fekkee def nañu motion de censure en réaction bu la neexee nga dissoudre assemblée nationale mais munoo ko def ci deux ans yi donc ci deux ans yi bu la neexee ñu def motion de censure bu la neex ñu def ko mais munoo ko dissoudre tant que deux mais ans yi ñoom nee nañu léegi man waxuma affaire motion de censure on n'est pas dans ce cas je suis dans le cas où assemblée nationale jël na décision boo xam ne ça ne se rattache à aucune prérogative. mais sauf que kenn sant ko ko. sauf que les députés la majorité bi sant ko ko. député majorité yi enclenché nañu beneen processus. en disant que dañuy dindi le pouvoir voilà. de dissolution de l'Assemblée nationale xam nga kon par le président de la République justement xam nga léegi ñoom et ils peuvent y arriver non non non ils, léegi nag est-ce léegi nag kon gis nga ñoom li ñu def bi ñu demee ba def loolu moo ne def ñu erreur bu garaaw et ils l'ont même annoncé ne léegi comme ñoom dañu bañ ñu dissoudre leen mais dissolution assemblée c'était pour quel objectif souvent c'est pour des élections anticipées. non non non non boo buggee ñu dissolution bi ñu prévoir Sénégal c'est pourquoi c'est pour que assemblée nationale ñu freiné ko bu fekkee dafay foyee motion de censure pour ñu bañ doxor ñaay nga ne motion de censure boo defee motion de censure attends-toi à ce que ñu dissoudre assemblée donc c'est un équilibre moom la ñuy def pouvoir ne la attention am nga droit de def motion de censure daaneel gouvernement mais nag boo ko defee président am na droit dissoudre la moo tax bu ko defee gars yi dañ koy manier avec précaution mais bii ban mooy objectif bi ñu ne way dañu meroo ak waa waa pouvoir bi léegi dañuy dugal projet de loi pour que président dootul mën a di dissoudre ñaareelu njombe bàngo daf may fàttali xale ba nettali naa ko ba sonn ñëw toog waa ji ne ko salaamaaleykum maaleykum salaam noppiwul xale bi noppi fa tontuwu ko dafa xiifoon si la sant wala wala kii wala wala Touré mu dem ubbi cin bi gis ne ñulug bi daal tuuti mu jël ndox yokk ñulug bi xale bi ne ko waaye yow yow xamoon nu sama njëlu yaay toll nga yokk ñulug bi mu tiit tibaat ci ci ci cin bi dem sotti ko ci ndaal mu ne ko sama yaay suba ba léegi ndox la uti yàq nga ndaal mu far daw ñaari njombe la ñu def yoo xam ne il mérite même pas de rester une seconde député il faut la l'Assemblée nationale faire des élections on aura une majorité le peuple va confirmer ou infirmer li mu defoon en 2024 ñu am une majorité moi je souhaite que ça soit une majorité stable qui soutient le gouvernement pour mu réussir ñu dem sinon à tout moment problème boobu day amaat. mais mais Boubacar. donc loolu c' est mais, très clair là-dessus mais mais, mais Boubacar xam nga. c' est du euh, jamais xam nga cette passe d'armes a commencé euh, avec l'invitation du porte-parole du gouvernement Moustapha Sarré euh, au grand jury de Babacar Fall. à une interpellation de Babacar Fall moom moo njëkk a menacé même s'il même s'il faut relativiser en disant que bu ñu ñu ne euh, Babacar Fall ne ko est-ce que premier ministre bu ñëwee assemblée duñ ko motion de censure réponse du berger à la à la à la moom mu ne bu ñuy def motion de censure ñoom dinañ dissoudre assemblée bi Abdou Mbow génn def communiqué riposté en disant que ñoom ay républicain lañu et que dinañu respecter le gentleman. yii hmm, leen nax de. xaaral rek. boo fa demee assemblée la deuxième séquence. Euh, c'est quand les députés de Yewwi s'organisent en conférence de presse pour dire au Premier ministre bu mu ñëw def DPG. Ils parce que le règlement intérieur est un faux règlement intérieur. S'il y a rien d'anodin quand le Premier ministre répond via Facebook en disant que du fa ñëw nañu conformer règlement intérieur bi. sinon dina dem defi. waaw dinaa ñëw déclaration de politique générale am. dinaa ñëw devant un jury populaire. dinaa ñëw ci jury populaire loolu aussi c'est un autre point. ñëw euh, de cette affaire là. gis nga en politique il faut toujours faire nga def distinction entre politique ak institution quand un ministre. va dans est est-ce que du l'actuelle majorité est-ce que moom moo ubbi hostilité yi aussi. waaw déglu même bu ko ubbiwul gars ñi dañuy piéger dañu bëgg a piéger le pouvoir. c'est-à-dire dañ leen attirer ñu ñëw ci assemblée nationale bi ah ñu non seulement ils vont continuer li ngeen di def nii rek ay guetteur de faux pas yaa fi waxoon lii yaa fi waxoon da ngay. def mais fii guetteur de faux amu fi. ça <laughs> c'est le c'est le c'est <laughs> le fonctionnement normal d'une grande démocratie. ma ne loolu non seulement loolu lañ fay nekkee loolu lañ fay nekkee. non guetteur de faux amu fi. yow yaa ngi soxla ñoom loolu lañ fi nekkee woon. et pire encore. yow bu fekkee ne danga nga bëgg lu baax. waaw yow déclara euh, euh, débat d'orientation budgétaire lan moo ko gën a leer. yow nga bañ. de ont violé Sonko la ñu soxla. déclaration d'orientation débat d'orientation budgétaire y a un ministre qui est là. c'est inscrit à l'agenda de l'Assemblée. mais dañ ko war a traiter yow traité ko yow Ousmane Sonko nga soxla pour indil ko teesante ah ba pare bloquer budget ba pare dugalal ko projet de loi pour ñu bañ a dissoudre assemblée avec les combinaisons ils peuvent avoir la majorité pour le faire c'est leur mais aussi c'est le droit du pouvoir de ne pas tomber dans ce piège. donc da nga jàpp ne président Raphaël dafa war a jël ses responsabilités. tout de suite dissoudre cette assemblée. tout de suite maintenant l'autre question la déclaration du premier ministre. qui dit que ne le faites pas je vais aller il est toujours à Facebook hein il l'a <laughs> pas écrit à dem def jury populaire. je l'appelle c'est le premier ministre qui parle. mais ba tey waxuma c'est pas avec toutes ses prérogatives et sa charge républicaine. dafa loolu c'est une déclaration politique mais tout le monde les gens ont dit projet n'existe pas ku mën a nier projet kay mën a nier déclaration de politique ils vont lui pare woo ils leur dire que man pare boo leen wootee suba ma def ko c'est une réplique politique anticipée ci critique yi nga xam ne dañuy wax parewul moom nee na pare na c'est pas parce que parewu ma que ma assemblée. donc président dafa war a dissoudre assemblée. tout de suite ñu organiser des élections législatives dëkk bi am institution yu baax. on n'a pas de risque de mais comment peux-tu changer le système institutionnel parce que tu n'es pas content système institutionnel bi ñu taxawal créer droit de dissolution ak motion de censure nga ne da nga koy dindi. parce que tu es la mais franchement. <laughs> ah mais c'est nga ne da nga koy dindi. on en politique alors en politique. ngay yow nga nekk institution nekk assemblée nationale. ñu jox la prérogative pour nga voter ay loi ñu créer benn mécanisme boo xam ne bi c'est pour contrôler le yow nga utiliser ko. pour bloquer le gouvernement mais est-ce que man bettuma je te l'ai dit assemblée bi xamee naa leen depuis la liste ba léegi xamee naa leen ñoo fi def lépp toutes les lois tous les trucs les plus graves yu mos a am ci législature ci assemblée nationale Sénégal ñoom ñoo ko. waaw député yi damm nañu fi ay taamu. lépp a fi am. Ah. assemblée bi ay wéqanteeg ay lu ne assemblée. bi waaw que maajeeri nañu fi daal bu ñu bëggee jàmm et puis mais tu tu dis que man d'accord institution bi lay yàq xëpp ci suuf te ki ngay waranteel de moom Facebook la wax de biddu la kenn biddu la lettre. pour yow c'est scandaleux. mais mais sa montre clairement comment le pays était dirigé.